nappkat yi nekk fii ci Kayar seen xol neexul benn yoon ñoom ba ñu leen fekkee ca tefes ga ñu ngi ñuy xamal ne dañu banque seen yoxo lu toll ci ñeentu fan gaal ya nag ma nga tega tembe bañ leen laajee nag li waral boobule situation ñoom lii lañu tontu. man ci sama xalaat bu gàtt ak fi may waxe mooy dama naan cause bi lii am ni tey état moo ko waral parce ministre de la moom mi nga xam ne moo njaboote ñëpp kaa yu mel nii bu ñu ñëwee ñëw ci yow wax la li nga xamante si moom moo am ci diggante Kayar ak doomu Gendar yi nekk mboora ñu ñëw nga toog di négliger noo kon cause bi bu amee ak fu mënti àgg rek man moom laay teg baaraamu tuuma parce que tey jii seetaan mu seetaan moo andi lii ne tey ba pare deuxièmement bi mooy lii ba mu amee maanaam man affaire bi fi toll nii nit ñi daf maa dépassé parce que xam la moo tax daf maa dépassé tey tey jii kenn ku ci nekk ci yéen maanaam liñ leen gi woon ci imager yi ngeen gis mais am na ci ñoo xam ne ñu ngi tëdd ci lal hôpital bi fi mu toll nii ñu ngi ci duggante dund ak dee yàlla nañ ci yàlla musal mu metti lool maanaam xale koo xamante ni si maanaam kii dañ ay 18 ans mais booy amuñu si kenn amu si 15 ans ay 14 ans ñii ay 13 ans la nam mais nga jël essence lu toll ni nga sotti ko ci kaw kaw doomu aadama ko taal. mu nekk image bu ñaaw mel ni ñun dañ ay robel mel ni ñun population Sénégal yërmande bi nga xamante ni si moom la ñu yàlla suñu borom moo ñaale loolu dañ koo génn teg na le nan am yërmande ci doomu aadama yi. waaw ñun waa Kayar dañoo am lu ñu naqari parce que dañu seex ak suñu moroom ay nawle ñu nekk ay mool ñu nekk ay mool. ñu nekk dëkk boo xamante ne ñun fi mu toll Kayar rek. moo nekk dëkk boo xamante ne boo soxlaa 5000 boo tëmbalee sa gaalu njoow boo yamee fii am jën mën nañ la Kayaar moom rek lañ am ci dëkk boo xamante ne fi mu toll nii ci senegal mooy dëkk bu baax fi la ñëpp daw jëm parce que yeneen dëkk yëpp mbaali moo leen yàq mooy mbaali Kayaar bañ muy mbaali fele-fele sabal mbaali yooyu Kayaar bëgguñu ko depuis cent yi ba tey ñu ngi koy bañ te suñu bakkan lañ ci gar mer ba futtu moom la ñu def ñii di waa pêcheur yu nekk fii ci Kayar ñoom nag bible situation indexé wuñ kenn ki nga xam ne mooy état wu ndaxte it bu ñu sukkandikoo ci seeni kàddu eh, histoire bi bii mooy ñetti yoon mu daal di répété ci diggante pêcheur yi nga xam ne ñoo nekk Kayar ak waa Guet Ndar. mbir ndax man mii bi nga xamante ne bii parce que magu kayaar dañu jiit état ci problème mu mbaal yi dañu jiitu état seen xalaat dafa jiitu xalaatu état ci mbaal yi. ndax mag ñi fi nekkoon di ki nga xam ne moo nekkoon chef du village di Baye Gor Ndoye moo jëkk a ñoom ñoo jëkka a taxaw booba ñun ñii may waxee yow te aytu tànk lañu booba sama ñoom papa ñu ngi ñooy dem géej bi ñu gisee loolu nappin woowu mu yàq ndar ñu bëgg dugal kayaar ci la bàyyi góor ñi bu ko fi kenn def lu yàq kenn bu ko kenn def fii fekk bam ay gàddar ñoo jógee ndar wax ka bàyyi góor bàyyi góor ñi lu yàq daal comme bu ko kenn def ki nga xamante ni bii moo jëkk a teg fii mbaal ci ci kayaar gàddar bi ko fi jëkk a teg keroog ba ko bàyyi góor teree la ko am ay benn benn yoo xam ñoo fi desoon dëgër bopp. ñooñu ñoo doon dem ñooñu ñoo doon ñoo ñoo ñoo doon ñëw di ser mbaali fii buñ ko seree suñu sama ñoom yi dem di ko sedd ci buñ ko seddee fii lañ koy teg ci tefes gi taal ko ñu leen fii kenn du ko fi def parce que fu genn gaal war a ser euh, fu fanweeri fanweeri gaal war a ser yow gi ñëw laxas fa yow yow nga laxas fa benn baal boo xam ne kenn dootu fa mën a ser kooku source de conflit indi conflit la indi beneen bi mbaal yooyu bu daggee ci ci roche yi parce que fii yëpp ay xeer la ay roche muy dëkk ko ay jën la fi la jën dëkk léegi mbaal yooyu bu daggee dafay muur xeer bi jën bu gën na la jàpp yow dootoo jariñoo mbaal mi jën yooyu muy jàpp dañuy de te kenn dootu ko jariñoo te ku sóob sa sa sa caas ñi nga xam ne dañuy pes def pes à la ligne ku yées ku sóob sa caas boo tibee boo ko bokkee mu la yenn saa dañ ko daa seet fii boo booy daw sa machine dal si dam yaa yàq mu bari ñun leen lii dafa yàq géej te lii bu continuer future génération yi nga xam ne suñu doom yi nga xam ne ñëw ëllëg duñu fi fekk dara vision boobu moom la waa Magu Kayaar abon bi bàyyi boobu ñetti at la ko dund 66 lañ commencé ak benn bi fii ça ne date pas d'aujourd'hui du tey comme ni nga ko waxee jëkkul tey ba nga booba Sénégal créé gul ministre de la pêche booba ministre développement rural moo boobu ministre moo yor mbay mi ak napp ak càmm gi booba gouverneur bu ñuy wax Moussa Ndoye moo nekk Thiès parce que yaa ngi may dégg bu baax soxna si dama bëgg Sénégal déglu li may wax nii histoire bi ba nga xamante ni bii so mag ñu ngi ñëw di sedd ji loolu di sedd ji di sedd ba xam ne bon coow li gën a jóg ci la état yi kon léegi kat ji war nañ ci wax bala moo jur musiba fii euh, jeune de production la jën dañ fiy jur fos de Cayar bi mu ngi fii fosse de Kayar bi ngay dégg fosse baa ngi fii fosse boobu xóotaay bi nekk de trois mille trois cent mètres de profondeur largeur bi nekk de neuf kilomètres. mu ni kon fii euh, comme ñaari napp yi mënuñu ànd nañ nañu euh, xaajale jeunes yi ba ñëwee ñu ne fu fële kii ñu yóbbu ko fële euh, booy bi ñu yóbbu booy bi fële si ñaar raaya 1973 lañ teg foofu booy bi kon ça ne date pas d'aujourd'hui 1973 lañ teg foofu booy bi si ñaar raaya koy yóbbu booba docteur euh, euh, Bernard jox moo nekkoon directeur de pêche te li ma la wax ko ci ku ko bëgg a weddi dina dem dina dem direction de pêche dina fekk archive archive bi docteur Diokh booba moo nekk si bato bi ak bay Mor mbay ak Cheikh Mbaye Ndoye ñooñu ñoo nekkoon ci biir bato bi. ban seree ñu ser foofu booy bi ñu ne kuy nappee kuy nappee mbaal ser commencé foofu jëm ba boori ndaal fu la neex képp kuy nappee buum la ka daggee booy bi ba ba Dakar fa la neex euh, euh, nappal si buum am nga droit sax sa euh, ser sa mbaal fële ba pare nga jël sa buum ñëw dugg napp. moo na mbaal mooy mooy filet dormant le filet dormant la te filet dormant yaay dañ ko daa ser di ko bàyyi lu mat ñetti fan ñeenti fan di ko jën bi jàpp sax day nëpp jën bi du baax te kayaar ñoom pêche du jour la ñu xam et puis ñëw organiser wu dëkk dëkk bu organiser wu la si wàllu napp ndax ñoom. vraiment lépp loo xam ne dafay yàq géej ñoom dañ koy bañ te lépp loo xam ne loi bi loi boo xam ne bi état état daf ko daf ko daf ko voté ñoom dañ ko respecté donc contrat APS bu njëkk bi dafa bañ filement bu mujj bii dafa bañ monofilament parce que xam ne li mu yàq benn gaal bu nekk da nga yab lu mat 700 mètres wala 1 kilomètre wala 1000 mètres. waaw li nekk gaal ci senegal bu ñu bàyyee gaal gu nekk yëpp ay 700 mètres nga ñëw tàllal ko ci gi ku ku fay napp mais kenn dootu fa napp kenn dootu fa napp. ñu nag Mboro dañ fi ñëw di set seer seen i mbaal ñun koy bañ ñu seer ñu jàpp leen seeti seen ay mbaal ñëw teeral ko jàpp seen ay nit ñëw teeral leen mais ñun ñu jàppee seeni nit ah. danoo téye mbaal mi nga xamante ne ñun état nangu ko pour ñu utiliser ko ñu jàpp mbaal yooyu taal ko te mbaal yooyu seerul eggul ay millions ay trois cent mille ak yooyu daanaka sax da leen koy may ñoom te état bëgg ko yooyu day yàq géej ñun ñu jàpp ko taal ko biñ jàppee seen i nit ñun da leen a jël yóbbu leen gendarmerie ñu jàpp faasal leen ñu delloo leen seen dëkk laaluñu seen benn doom dóoruñu seen benn doom si njëkk ak teraanga bi ñu waxtaanaatee ba juboo ñu jox leen seen i bagage ak seeni i matériel ñu ñëw fii ñu jàppale leen solol leen essence ñu dem seet jiwaat seen mbaal pour ñu demaat seen yoon xanaa coow loolu jeex na ah. histoire bii moo jiit suñu judd. xamal la moom xam nit bu tooñee da nga ko mun naa ma yaa tooñ. xamal lan mooy ya yaa tooñ nga dem si dëkkab jàmbur la ñuy aaye ngeen doo a bàyyi. lu la ci fekk yaa ko teg sa bopp lu ci fekk yaa teg sa bopp nit ki nga xamante ni day def dara te neexul waa dëkk ba kooku ngay ngay jàpp ni que eh waa dëkk bi bëgg bëgguñu lii bàyyi lii mënoo kaa bàyyi yoon dina teg ay daan parce que nag am na loo xam ne bu yàggee tooñ lay jur te diggante bu dara xaju dara xaju coow nag mënut a ñàkk. waaye diggante Kayar ak Gendar ñun ñëpp benn lan ñun ñëpp benn lan seytaane daal man daal jàpp naa ne seytaane moo fi dugg te yàlla na ko fi yàlla yemale tey boo demee Ndar doomi Kayar nga fa boo demee eh, Kayar doomi Ndar nga fa kon ñun ñëpp benn lan jote bi am ci diggante pêcheur yi nekk Kayar Mboro ak Guet Ndar def na ay dégâts matériel yu bari naam bu nekkee sax amul kenn koo xam ne ñàkk na ci bakkanam wante it gaañu gaañu yi daal na métti. ñun ñi bi message bi ñu gisee affaire bi ñun dana kull koo xam te ne gendar nga dala naqari ndax taal nit moom ñun bokk ñun gendar bokkul sunu objectif non non ñun xamul loolu xëy na kay. affaire bi ni mu demee jaaxal na ku ne te naqari na ku ne ñun bi ñu ko gisee danoo danoo jaaxal waaw ñun nag ñoo ngi leen di masawu ñu leen di masawu yal na leen yàlla wiral parce que ñun ak ñoom ñoo bokk waaw yal yàlla wéral wéral képp koo xamante ni ban dellu si seen seen i famille. waaw non waaye te boo xoolee ni am na ñoo xam te ñoo ñoo nekk ak ñoom te ñooñu ñoo ngi doon wax naan alhamdulilah ñoo ngi sant ñoo ngi tene baax yal na leen yàlla gën a saafara yal na leen yàlla gën a saafara. li fi jóge si genn kenn mënu kaa wàññi yaa ngi dégg ñeen ñaa ngi dëkk biir Kayar ñeen ñaa ngi dëkk Njoxob ñeen ñaa ngi dëkk waaye kenn mënu kaa wàññi waaye nag metti na dañuy dem ndar ñeen ñu doonoo luyee woon seen kër ah ñëw fii bu nu àggee tamit dañuy jéem a xool ni ñuy def rek waaw ah, métti na nag foofu métti na lii kenn bëggul mu am mais comme que am na métti na rek état rek nañ si si kii rek nañ si ñaan moom mu dimbali nu mu jàppale noonu rek. Gendar ak Kayar daal wax ni mooy kenn mënul dem bàyyi sa morom lu yàgg yàgg Gendar day ñëw lu yàgg yàgg Kayar day dem yàlla mi nga xam te ne mooy borom jàmm yaa nañ jàmmal lii nuy woote nag muy jàmm yàlla nañ si yàlla jàppale ñëpp ñëwaat si jàmm yàlla ubbi fi naataange ubbi fi xéewal ban fatte jafe-jafe yi nga xamante ne ñoo fi amoon. sunu doom yeeg sunu jarbaat yi nga ñoo tëgg hôpital yal na leen sunu borom yokkati waaye lu métti la nag lu métti la parce que imagine toi nga jàpp nit nga jël as almet kosete di ko taal. imagine xoolal loolu loolu nit ku normal dégg dina ko def si xale yoo xam moins de dix-huit ans nga di leen def noonu jël ay xeer yu ñuul ay doj di leen ko dóor seen kanam yi ba seen bët yi di bëgg a tuuru ah est-ce que loolu c'est pas loolu rafetul njaboot goo gis njaboot la njaboot goo gis njaboot la waaye li ñu def xale yi dafa ñaaw torop torop torop torop torop may ñaan nat beneen yoon yu mel ni nan koy invité parce que waxuma la ci dëkk mais baaxul ci am réew waxuma la ci dëkk de mais baaxul ci am réew day yàq am réew kon yu mel nii nañ koy invité ñu ni ci lakk ay xale yu bari lañu xaw ma lakk xaw ma asib sax parce que loolu du lakk-lakk ay wax bu doon lakk-lakk moom moo seen seen karaw yi lakk loolu asib la c'est dangereux loolu daf xale yi nag ba mu génn yéen ngeen kenn la xalo loolu moo moo dagg suñu xol yi doomu jàmm nga xëpp ko ësib ay ay doomu jàmm nga xëpp leen ësib ci lan ci lan yow dafa na la njëkk de loolu njëkk gi baa nga baa nga toog tranquille pourtant leen defal ñoom mënul kaa defal ay jabar lañ leen may suñuy suñuy doom ak suñuy sëriñ fi nekk ci ñoom yu si ëpp suñuy sët ak suñuy doom ñu leen may jabar may leen ay kër ku dëkk Kayar ko am ndar kër la nga kaa gis wala wala wala mboor agee jàmm la ñu bëgg moom la ñëpp bëgg c'est ça le problème jàmm la bëgg moom la ñëpp bëgg mais jàmm ji aussi tamit ba da nga koy ñaan mais boo ko ñaan da nga koy sàkku nan sàkku jàmm ji ñu ñëpp nu am jàmm. dañ fee télé fii dormant ak ak ak mbaalu caas le léeg loolu la ñu utiliser nag ñu indi leen indi seen i mbaal taal parce que loolu lañ ñu baaxoo. bu yàgg ba tey ku fi ku fi indi mbaal ser dañ koy taal sa kanam ba ñu indee mbaal yi ba taal ko léegi nag léegi ñoom ñu jëndal leen essance jox jox leen ñu lekk daal di leen tëmbalaat ñu delluwaat seen i kër xanaa ñu bëgg na jàmm léegi nag léegi nag ñoom ñu dañuy fayu fekk suñu doom ci biir géej ga lakk leen sotti leen essence taal ñenn ñaa ngi hôpital ñenn ñaa nga urgent Dakar ñenn ñaa nga Saint-Jean de Dieu loolu nag metti nañu lool nag ñun nag ñooy yaay yi métti nañ trop mais wax dëgg yàlla dañuy déglu suñuy kilifa ñoom góor ñi waaye ñoom ñoom gendar yi ñoom ñoo mobilisé guddi gi la njëkk a lakk taal waaw def ko une deuxième fois lakk taal dugg ca fee saccagé fépp bu doon woo luñ préparé xam naa duñ mënal gaay dara bu doon danoo jug di jàmmarloo ñun ñoo leen ëpp doole mais ñun dañoo jugoon pour nappi pour jàppoon nañ coow li jeex na ko bi ñu arrangé ba pare mais bi ñu demee di nappi ñoom ndeke préparer na loolu yor seen i jaas yi seen ngàndaay seen i xeer lu mat ay deux cent gaal tëmb du song suñu gaal yi di leen attaqué ñuy cor ñi ay jaas yi ñii ñu leen di taal loolu dafa ñaaw yaakaar naa image yi ñëpp ñu ngi koy seetaan Sénégal gépp monde entier sax laay wax ñuy seetaan yooyu image fi mu toll nii loolu dafa ñaaw ay jullit doomu aadama comme yow nga jàppaleen leen taal loolu daf ñoo métti ñun waa moo tax ñu jàmmaarloog ñoom. xeex ak mbooloo mu la bett dafa metti te dañ leen a bett nag jëfin yu ñaaw maanaam njekk gi leen defal delloowuñu ko dañuy tere lii bëgguñu ko bàyyi leen ko jàpp leen seeni gaal téye leen fi setti gaal. bin fi ñëwee di waxtaan ñu jëlal Sénégal delloo leen Sénégal dépanne seen machine ànd ak ñoom gunge leen ba ba jenn waay kanool bi mu ñu ko ñibbi si mais njekk googu teraanga jooju lu tax mën ñu ko mën a delloowaat waa Kayaar ñu leen ko defal. loolu ngay dem di leen di leen préparé xam nga loolu olof moo wax ni la bett man la voilà. ñoo bi xale yi demee gis ñu ser mbaal yi fii itam dëkk bi si lañ dem sedd mbaal yi ñëw tekk fii fi ñu ñëwee bon di xaw gaal la lañu gis xale yi xam nga ni mënu xësi kenn mën a canaliser ñu taal ñu niil comme lii lu am wax ñu dañ ko taal nañ ko taal ñu taal mbaal yi mais gaal yi ak bés yi ñu daal di protéger ko ñoom xale yi ñu neen xale yi bu mool yi bu leen kenn laal laalu ñu si benn mool protéger leen yóbbu leen service de pêche ba ñu ñëwee ñu garder leen seen matériel ba ñu ñëw ba ñu ñëwee ñu négocier ñu waxtaan ak ñoom yëkkati Sénégal tëmbalal leen ko jàppale leen ñu tëmbale ko ñu bàyyi leen ñu dem ñu bàyyi leen ñu dem ñibbi keroog ba ñoom ba ñu xamee jot nañ seen matériel ba ñu ñibbee la ñu dem réunion préparé waa Kayar ci la lii doon xew bi lii xewee waa Kayar dafa ñoom pour ñoom problème bi jeex na ñoom ñu daal di tëmb dem di Mali. caanu boobu dañu ko fekk mu mbaal ñu ñëw fes surtout essence si gaal gi taal ko daal di jàpp karkalal yenn gaal yi ñëw teeral leen foofu xale yi xaw ma acide leen xëpp xaw dañ leen taal mais ku nekk gis nga image yi mboolam image bu ngeen gis foofu du gendaar du kenn waa Kayar la na leer. mbir mën nag ëpp na loxo wante it bu ñu toogee di seetaan li nga xam ne eh, dina dégénérer kenn du xam dégâts yi fan lay tollu jamono ji ñi nga xam ne it ay eh, dëkk waay lañ wala sax ay famille yu nekkoon fii ci Kayaar jóge ca Guet defuñ lenn lu dul jël seeni bagage di dellu ca seeni dëkk ndaxte it nekkatuñ en sécurité fi nga xam ne amooy Kayaar du duggante Kayar rek ak mboora parce que Mbora ay gendar ñoo fa nekk ñoom ñoo jugee fii ñoom lañ fi dàq 2005 ñu dem mboora di def fele-fele foofu ak ak sabal mbaal yi ñuy bañ ñoom ñoo jàngal waa Mbora lépp xeex bi bu ñu waa Mbora la Mbora la ak gendar ak Kayar parce que waa gendar ñoo ci dugal waa Mbora parce que amul benn doomu set Kayaar boo xamante ne di nga dem benn dëkk fekk ko foofu muy lu ñuy tere ci géeg mu koy def ñun sël ñoo toog suñu dëkk xale Kayaar xamul sàcc xamul agresseur xam nga lu ñu xam liggéey buñ soxlaa 5000 buñ demee fii bu buñ ko demee dañ koy am parce que suñu géeg ñu ngi koy toppatoo ñu ngi ko war a toppatooyee ba li ci bëgg ñu koy am kon nag duñ nangu keneen duñu ko yàqal. duñ nangu benn doomu aadama dina ko yàqal. depuis trois mois ñu ngi avertir état ñu ngi avertir état bind nañu ku ne ñoom kenn mënu ko si weddi état bind nañ leen réclamer leen ni leen waa Mboro ñu ngi commencé di seet di dugg biir Kayar di dugg Kayar ba jugi tiim dëkk bi ñu jàkkaarloo ñu jàkkaarloo ñoom. wax leen si balaa pour balaa la xew 2005 euh, euh, di xewaat ay ay bakkan di si rot mais région ministre boo gisee xale yi ni que ni duñu wax ak moom biñ ko waxee moom dal dal na ngeen fexe ko ne xam ne ku ci rey ni dañ dañ tëj est-ce que loolu mooy waxam moom war a jóg seeti gouverneur wala mu o gouverneur wax ka mu jël ci jóg ci mbir mi moom ak gouverneur yëpp kenn réagirul kenn réagirul lii am ni nag gënulu kenn gënulu keer gënulu doomu ndar xëy na nag histoire li ko gënaa bi waxe sànq histoire moo ñëw ministre bi communiqué communication boo xamante si maanaam teguwul ci yoon communication bi xam nga mooy lan maanaam tey mënoo ñëw fekk ay doomu kayaar yoo xamante si maanaam da leen sotti essence taal leen nga dem hôpital nga gis ni doon ñu rey yaramu xale yi am na si ñoo xamante si li ko dalee seen kaw ba ci seen suuf lépp a yàqu waaw léegi yow nga ñëw naan benn cas grave moo fi am mais bu ñu déggee booy bi ñu dégloo journal boobu vingt heures bi ci la booy réagir loolu waral li am Macky Sall laay laay laay laay waxal. na wax ak ministre yi nga xamante si ñoom lay dénk wàllu pes bi man xam nga lan laay wax na bàyyi ñi nga xamante si dañuy xamuñu lu dul am napp ñu xamuñu lu dul am sàmm wala ñu xamuñu lu dul leneen lu dul leneen ñu jël leen di leen dénk wàllu géej gi di lor askan wi nanu bàyyi loolu tey mool yi bu nu demee ba xuloo si seen biir man yàgg na maa def alerte bii man sama wàll bopp sama page TikTok boo fa demee yàgg na maa def alerte bii di wax ni état na jóg wax ci li balaa jéggi dayoo te ba ma koy wax tey lii amagul woon kon lii am ni tey cause bi lépp état la moo jaxase mool yi moo fexe ba moolee rayante mais bi loolu amee mais kenn ku ci nekk am na fa place bu la war man a teg nga tegu fa mais xale amul lu dul tam te saa ndaw saa bu tam yëngoo mu réagir yàlla nañ ci yàlla musol danoo am lu métti nat mu waral ñu réaliser nii taxaw quatre jours demunu géej mais neexul te xam naa ci xale kaat jom ju toll bu doon. ñaari weer mën nañ kaa toog muñ ka waaye ñàkk dem gi ñu ñàkk dem neexunu waaye nag mun noo gaañ say xale gaañ sa njaboot ah nga bàyyi leen fi xamagoo ci lu nekk nga dem naan dangay liggéey c'est impossible xel nungu ko ñoom kay dañuy xam ci xale yi ñu ngi si jàmm bu baax yàllaa ngi leen may tan ñu fexe nun deme géej yaa ma dégg régle situation yi ñu loolu ñu ñoo ko programmé suñu bopp parce que ñun suñuy doom dañoo nekk ak coma ay xale yoo xamante si ñu nga ci biir hôpital xamaguñ si lu nekk ñu ngi si duggante dund ak dee xale yi nga xam ne dañ leen a tëj ci kaso bi waaw noonu dafa am ñun si téye te ñooñu ñu si téye noonu faaw ñu libéré leen bu ko defee ñu mën a xool nan la ñuy organiser woowaat waxtaan ak suñuy ndaw ñu reposé wu ñu bàyyi coow le mu jeex kenn ku si nekk si la nga nekkoon. ndax fi mu toll lii mën naa indi mën naa indi crise bu rëy ci dëkk bi te mën naa mën naa laal ni mu laale Kayar nii mën naa laal Ndar ba laal Yoof ba laal Sénégal partout dans le monde parce que tey jii ni dëkk bu demul géej amoo jën ku na xam na ni sawaay dëkk bi àdduna bi yëpp koy yëg te état loolu war na cee jóg nag balaa affaire bi ëppi loxo ndax lii nii tey jii ku ko seetaan ku ne man pour man barke alxuraanu karim boo jooyul sa yaram dawul man la dama naa doo gor ndax kun ko defoon sa doom tey ak ku mu mënti doon non di nga am beneen côté boo réagir. ñi nga xamante ni da leen a yàqal état mu teg leen loxo parce que yàqule dafa métti am na ci matériel yoo xamante ni tey jii boo duggoon ci génn kër vingt millions mayu la ko vingt millions mayu la ko kon loolu bu ko borom bëggee sëgg mënu kaa du ko bàyyi sax parce que day métti parce que am na su ñoo xamante ni am na su ñoo xamante ni mbaal yooyu ñu yor amaana ñàkkul ay crédit te crédit yooyu da nga koy fay parce que banque xamul dama yàqu la xamul dama def lii da nga koy fay kon état na leen teg loxo gesu leen xam ni lii balaa la bu fa wàcc yaa ma dégg mu jël ki tooñ mu ko ne yow yaa tooñ bu ko waree teg ay daan mu teg ay daan mbir mu jeex tak en tout cas man rek un million cinq cent moom man xam naa ko ci produit bi ma lakkal bokkul nag ak trois cent vingt cinq femmes yi ne ci biir ku nekk ku ne xam nga loolu neexul estimé ba pare nag locaux yi ñu lakk toj la fa nekkoon lépp damat bureau ah loolu moo neexul estimé de sama doom loolu jafe naa estimé de ah en tout cas ñun de ba jàmm rek lañ bëgg waaw parce que jigéen jàmm rek la bëgg parce que jigéen moo yor njaboot gi kon jàmm rek moo ko jikk jàmm la bëgg yàlla na nu yàlla defal jàmm. ah ñun jigéen son nan de ndax lu ay wu ñëw ñoo ci gën a méttile parce que ñoo jur xale yi kon ñoo ci gën a méttile vraiment ak suñu jëkkër a ngi ci suñuy doom a ngi ci kon mu metti lool muy loo xam ne événement bu metti trop trop trop trop vraiment ah, na na président de la république rek ñëw ñëw nag wax ba mu sedd mu xool nu muy def ak doomu aadama yi parce que loolu rek moo ñuy soulager. ki ñu naan nag dafa dee. kooku la ñu waxoon dafa dee moom ngeen doon wax léegi kooku ñoo waxoon dafa dee deewul ñoom ñooy def loolu pour médiatiser affaire yi pour pour parce que ñoom ay soskat lañu dañuy mën manipuler nit ñi ak di leen réeral mais mu ngi doon yéen ko gis léegi bi ñu wax ñu la xale bi deewul bi ngeen waxee ngeen yéen dégg ngeen xibaar boobu ni affaire bi deew xale bi deewul kon xam nga xam nga jullit Sénégal dafa bëri ay jullikat mais bëriwul ay jullit ndax jullit du fen jullit du wax lu dëgg comprendre kon léegi mbir mi état responsable la si ndax bind lañ leen réagiruñ ba lii am si mais nañu xam ne état Mboro kayaar fas ñoo war am seen fule bopp ñi nga xamante ni booy benn benn di basé foofu ci Mboro googu tey dëkkee def mbir mi ba ay musiba di si am nit ñi yàq seen mat seen i matériel di si yàqu ñoom ñoo war am fulay wax leen dëgg ñoom loolu mooy wax bi ñooñu la war a sanctionné ñooñu dañu war a sanctionné parce que lu xam lu ñuy njàngate ñoo njàkk mais tey jii nii boo demee dañoo introsé ay kilifa yoo xamante si maanaam ay kilifang sax ma ne kilifa ay kilifang yoo xamante si ñu taxaw naan dañoo jël nit taal ab taal sànni ca ci ay doomu Kayaar yu def yooyu loolu loolu yenn na maana ñaat année bi mu fi njëkkee am 2005 ay doomu Kayaar lañ ci dóor bal doomu Kayaar lañ ci rey am na kuñ ci rey 2005 bii ñëwaat encore une fois ñu ni ñun dañoo rey benn doomu Gendar image yaa ngeeg ñun loolu ñuy wax naan danoo rey benn doomu gendar benn xale bu doon bu bokkoon Sénégal loolu c'est faux nan waxante dëgg ay kilifa du wax lu dul dëgg bu dee kilifa ga doo wax lu dul dëgg nan waxante dëgg mais lii ñëw loolu ñuy wax noonu aggraver affaire bi naan danoo rey nit ñun kan lan rey kan lan rey ñun rëyuñu kenn kenn lan reyul E, jamono ji nag ñi am ay gaañu gaañu ci boobule affrontement ñenn ñi ñu ngi ci hôpital régional bu Thiès ñi ci ñàkk seeni alal ñu ngi xaarani nag état wu Sénégal di réagir wante ak lu ci mënte nekk ñi nga xam ne ñooy dignitaire lëbu yi dinañ daal di daje ngir def ab waxtaan ngir trouver eh, solution. ak lu ci mënti nekk rekk nañu xam ne gaal gi benn la te it mbir mi ala lëbu la kon nag jamono ji nañu xool rek nan lañuy ñuy trouver euh, solution ngir jàmm mën a am ci diggante pêcheur yi nekk ci gétt ndax euh, mbooro ak fi nga xam ne euh, mooy Kayar. yàlla moo nu boole fii ñun ñëpp donte fi leen dëkk mais yàlla moo nu fi boole mu dëkk liggéeyukaay kan nanu am jàmm ñoom nanu ko sàkk ñoom tamit. nit ki doo ko fekk ci bu dëkkam ni lu ma neex laay def dëkk koo gis dëkk boo gis géej def koo gis moo am dëkk géej nekk fa kooka moo moo moo moo am priorité papa lu mu fa bëgg kenn du ko fa def. damaa sañu ñëw seen kër di fa di def lu neexul sa ñàkk ñoo yem noonu la mel. ku nekk xam na ne Kayar dëkk jeunesse la Kayar dëkk bu macha allah ay jeune la yor ndax soxna si bi ñu ñëwee 1985 boobu. événement bi ñun bi nga xamante ne formé na comité de pêche bi comité de pes bi moo fi génne mbaal yi en 2000 moo fi génne mbaal yi mille bi ñu ñoo a créé histoire bi dëgg dëgg dëgg état moo desee jël responsabilité am je pèse beaucoup mes mots. Guédar xam nañ ko Fass xam nañ ko Mboro gi nga xamante ne bi si fa lañ ko defee waaye Mboro xam nañu loolu. ñi ko fay def ay benn benn nit ñooy ñëw jaxase jaxase comité yi mooy ñi nga xam ne fii lañ leen génne 2000 ñu dem basé ci Mboro Mboro musul am gaalu ngét musul am gaalu ser Mboro ñetti mbaalu mbaalu laaw mbaalu xëcc mbaalu laaw ñoo fa daan ñoo daan nawet muy mbaalum Vieux Saliou Taw mbaalum Amet mbaalum du Sargay ñooñu ñoo fa daan nawet di mbaal mbaal law yaa booba waa Kayar yi am na si jóge fii ñoom Aliou Ndiaye Seck ak ñoom Makoura Ndiaye dem di di fa dal di fa gët waa Kayar yi pël yi pël yi mboore yi bu ngeen demee ñoom bu ngeen demee sa chef de village li may wax moom mën ko dina ko dëggal. ñooñu nag groupe boobu nga xam ne bon ay tierce personne lañu ñoom ñoo bëgg a jaxase Guet-Ndar ndax ñoom buñ ne fi leen tere ñooy ñëw di fa dugg yenn saa di sàcc su leen jàppee ñoom ñu ñëw taxaw ni Kayar ngay leen teg waa Guet-Ndar nangam da ma jàttisi ko ba ba leen fi génnee Kayar amatul benn problème. Kayar sànq mbaal amu fi amu amul ju benn problème tarewuñu kenn géej ñëpp ñu ngi fi ñëw di liggéey pour jël seen wësëg. gendar yi nekkoon fii nga xam ne dañoo d'accord ci li nga xam ne waa Kayar nepp ñu ngi fi nekkoon à l'aise nekk am nañu fi ay kër am nañu fi am sëq waaye li olof Ndiaye naa ñax gu war na lakk jox ko tooy mais ñoom ñoo war a wax seen bokk ñu ñu ñu bàyyi li ñu def Kayar gi jur ku ci deful dëgg dañ la daan defoo nekku ci dëgg mais ñoom amuñu courage boobu ñoom ay parparloo lañ fi nekkee ndax tey fu tefes goo dem fii nekk tey ñu fa génn di wax ay gendar lañu te ndax lii xale ji yi jëfandikoo moom la ñuy jëfandikoo coow liggéey dëgg lépp loolu moo ko andi wax ñu ni ñuy dëgg mais Kayar musula tere géejam te musula tere géejam te du ko musa tere dañ leen wax ni képp koo xam ne kii euh, dak la ngay nappe buum wala ngay kii noonu daal filet dormant ak monofilament c'est interdit par la loi ñun ko def fii ci Kayar amul benn waa Kayar bu koy fi def keneen ku bëgg a liggéey si nag ñëw nga liggéey si mais ñooñu nga xamante ne ñoo koy nañu bàyyi zone bi beneen bi mooy zone bi ñu koy def sax AMP la AMP la dañ ko war protéger cinq AMP yi nga xamante bi bi bi Abdoulaye Wade demee demee euh, Afrique du Sud si euh, boobu moom la ñu kii Kayar si bokk Ndar sa bokk Ndar am na AMP te cent soixante quinze kilomètres carré yi nga xamante ne bii mooy AMP bi moo ëmb dëkk dëgg buy bi ba ba ba frontière Dakar mais dëkk bu nekk dafa am ay réalité boo gisee fii Kayar zone de pêche bi yëpp. ci AMP bi la nekk mais dafa am parti boo xam ne dañ koy bàyyi pour gaal di ko noppee beneen bi fii fii may to fi ma lay joxoñ nii tey boo demee foofu fi la jër yu bari di juree foofu jër yu bari foofu la ñu juree yaa degg ba ñu ñëwee ba deux mille ba ñu fa jëmee génne foofu ba deux mille cinq la ñuy ñëwaat dugaat fii complot parce que ñoom dañuy ger commandant bi fi nekk la ñu gar muy Alassane Diémé je pèse moom mots fu mu nekk mu muy dëgg ba ñu ñëwee tey mu complot ñoom ba ñu ñëwee teer si fii ñu ñëw ba ñu coow ba coow bi am ba ñu rey waa waaw waa ñoom waa Mboro yooyu ñoom ñoo créé waat affaire bi. ñëw ba ñu ñëwee ba fii léegi ñoom si la ñu rey si la ñu rey suñu benn xale boo am 21 ans ki may wax kooku ma lay wax ni ki yaaye rey moom moom place bi yaaye moom place bi ñu jam si ñaar fukki xale ak juróom-ñeent bali fii lañ leen fii ma lay joxoon nii fi lañ fi lañ ñoom ñëpp fi lañ daanu gendarme yi fi lañ taxaw doo ay bala fital ñu daanu ñaar fukki xale ak juróom-ñeent dossier boobu mu ngi ne en ba léegi kenn waxu ci état ci. dossier boobu ci ba boobaa Mboro yi ñoo créé ñoo créé histoire boobu këpp complot ak commandant bi fi nekkoon di ko jox jën ak xaalis problème bi bi nga xamante ne bii réglé nañu problème boobu. waaw bi nga xam ne ñun réglé nañu réglé nañu problème boobu ba demoon na ba gendarmerie sax ñu ñu dugg si biir dëkk bi. si lañ fi yebal benn commandant bu ñuy wax Modou Fall Modou Fall moom moo ñëw négocier waa dëkk bi xamal leen ñëwuñu pour pour reyante ak mais dañuy ñëw pour sécuriser leen. si lañ ñu oo waxtaan ak jeunesse bi ba apaiser affaire yi yaa ba apaiser affaire yi ba lépp ba lépp am am jàmm. ba tey noonu ci mbooro ak Kayar dafa mel ni ñoom tamit balay cas bi di am seen diggante xawoon na ratax diggante un mois ñun duñu jàkkaarloo parce que bu nu Moussa bu njëkk bu nu Moussa wax bu payi Moussa ñëw dañ laa wax naa waa état da laa wax ne Kayar ñoo tooñ ndax dañu bëgg fajal seen bopp mais loolu ñun éviter nañ ko ndax 2005 dañoo bind kii de droit RH bi la ñu topp RH de pêche bi képp koo xam ne kii kilifa nga bind nañ la lettre réclamé la ñu bañ ñu jël arrêté préfectoral bi taf ka ci lettre yi def plainte bi cinq personnes yoo xam ñoo na récréé affaire bi te jóge Mboro état kenn réagirul keroog bi nga xamante ni bii ñëw nañu ba coo affaire bi éclaté sunu mag ñu jëm gendarmerie di négocier commandant bi ku ci wax dana la tëj le vendredi. le lundi 12 juin 2005 c'est la ak affaire bi éclaté ñu rey si benn xale jam si vingt yaa ma ba ñu ñëwee procureur li mu njëkk wax mooy waa Kayar maa ngi leen félicité féliciter ndax ja daf ngeen li ngeen di war a def jaar ngeen fi ngeen di war a jaar. gouverneur Sakira moo nekkoon Thiès bu deewul mu may dund may dëgg Ahmed Fall moo nekkoon préfet bu Thiès Ahmed Fall avant muy nekk gouverneur Thiès moo nekkoon préfet bi. Djibaka moo nekkoon nekkoon euh, ministre la pêche yaa ma dégg euh, Ousmane Ngom nekk ministre de Bakaay Mbaye moo nekkoon euh, Bakaay euh, euh, kii Bakaay Bakaay moo nekkoon ministre des forces armées ñoom ñëpp ñëw nañ Kayar Ibrahima Diop Mariam Diop ñëw na Kayar ci événement bu 2005 bi. ñoom ñëpp ba ñu ñëwee Djiboko ak ak Sakaria Diaw gouverneur dañuy wax ne lu xew ñu ne état la ndax lii lenteur administrative moo ko indi kon yaakaar naa ne pour apaiser affaire bi kon léegi dèjà ñooñu ànd ak dal te xam ni looy séntu oxygène te loo oxygène jàll yii yëpp day jàll. bu ko defee nag li nga xamante dañ koy tere fii képp koo xam ne kii da nga bëgg jàmm si Sénégal wala da nga bëgg dibali euh, mool yi li ñuy tere si Kayar nga xam ne benn waa Kayar du ko jëfandikoo nag ñëpp bay ñi bëgg liggéey ñëw liggéey si jàmm delluwaat si jàmm lañu am ñu muurloo ko ak seen jaboot nun loolu lañu sàkku si Kayar loolu lañ sàkku si Kayar te loolu autorité yëpp xam nañ ko ku wax ak waxul ku wax a waxul xam nga réalité am Kayar képp kuy moo ci Sénégal xam nga réalité am Kayar ba ñëpp ñu ngi war a jë jël exemple ci ci Kayar ndar mënatu la amu jën moo tax mënatuñu faa toog ñoom moo tax mënatuñu faa toog Fass ak Mboor ak fenn ëpp leen jën mais bañ fa baasee gisatu leen fa yoon jën gisatu leen fi jën te fu ñu yàq ba mu ba mu yàqu ñu ñu dégage ñu déplacé dem feneen loolu nag mbir mi il est temps mu jeex mu jeex définitivement ñu ngi ñaan ak xale yu Kayar yi ak waa Ndar waa Fass Boy waa Mboro ñoom ñëpp ñu ànd ak dal yaa ma dégg euh, lii li fa waroon jaar xañ na yàlla ko tudd jaar na fi mais nañ fexe ba mu amate ba mu répété ti yàlla may jàmm ñun ñëpp Sénégal yàlla fi yàlla sotti jàmm ndax mbir mi bari nañu dugg fee si kër Gendar di ko yàq mais ay Cees lañ jóge ndax am na ñoo xam ne dañuy dégg fu manifestation am rek ñu ñëw raxaale si biir te bu ñu defee enquête bi dinañ gis ne dinañ gis am dina am ay waa Cees yu ñu si jàpp yaa ma xamuñu violence. xamuñu violence mais nag aar géej gi moom nee naa bu waa Kayaar gépp deewoon ba